suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon ndaw dañoo ko xaaritoon jar danaa seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na ko station bi ñu mën a abonné wu ndax ngay mën a am wax ne nañ bàyyi xel li ñu fi indi te bañu jaamu yàlla rek moo ñu fi waaye moo ñu fi bax li la fi te bala fi nag jamono ju nekk waxtu wu nekk war nga kaa bàyyi xel. waaye dëgg la jaamu yàlla moo ñu fi indi moo ñu fi ba waaye ana lan mooy jaamu yàlla ana lan mooy jaamu yàlla loolu la ñuy laaj luy jaamu yàlla ndax yàlla bu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa bu liya'budun bind ma nit ak jinne la wax lu dul la wax lu dul lu dul ñu jaamu ma kon ndem yàlla dalaa bind ne bind ma lu dul nga jaamu ma kon lépp looy def te yëg ne du jaamu yàlla rek bàyyi xel ne mooy yàlla la kon nit ki ni muy def ba mën sax ci jaamu yalla ci waxtu wu nek ak fu mën nek da ngay fexé xam yalla ta'rifuni qabla an tahbuduni wa fa in lam ya'rifuni fa kayfa tahbuduni yalla mo ne xam ma bala nga may jaamu soo ma xamul ana nan nga ma bëgg jaamu yow nan la no ma bëgg jaamu kon kep ku jappone ne jaamu yalla dafa yam ci julli wala wor wala nat aska wala aji yow xamago yow lan moy jaamu yalla ndax jaamu yalla fu nit mën a nekk laa waxtu bu mën a doon ak seconde bu mën a doon ak noo fa mën a nekkee da ngaa war a nekk ci jaamu yàlla kon nag luy tax nit fu mën a nekk mu jaamu yàlla mooy il faut mu xam yàlla waaye lu tax nit mën a xam yàlla foo mu uti dem uti wasila ndax yàlla moo ñu digal ci alxuraan ne yaa ayyuhaa allaziina aamanuu ittaqullaaha wabtaghuu ilayhi alwasiila wa jaahiduu fi sabiilillaahi loolu dëppoo naag bi Sëriñ Tuubaa di woote ci yoonu murit ne minallaahi illallaahi ci yàlla laa jóge jëm ci yàlla ànd ku nam ma dem ci yàlla kon kooku ku jaayanteeg moom yàlla ngay jaayanteel kon sëñ Tuubaa bu ne illallaahi minallaahi ay na muridullaahi kon nañu xam ne muridullaahi la sëñ Tuubaa woote muridullaahi nag mooy kan mooy ki àgg ci yàlla muridullaahi mooy ki nga xamante ni àgg na ci yàlla waaye nag ku bëgg a àgg ci yàlla wasila boobu ngay uti laa wasila duwul yemukaay mais jaaruwaay la wasila du wul yemukaay de xam nga kenn kum ci mën a doon misaal bu gàtt lañ ci joxe rek màggal Tuubaa gi bu jubloo boo demee penc ma ñëpp a ngi njëkkalante oto yi est que oto yee leen tax a jug wala Tuubaa leen tax a jug balaa chauffeur seeg apprenti yi di xam ne ñoom taxu ñaa jug client yi oto bi dem bàgg Tuubaa nit ñoon njëkkalante di yéeg noonu la ñuy njëkkalante di wàcc kon nit ñi bi taxu leen a jug waaye Tuubaa leen taxoon a jug googu nag bu ma koy misaal mooy jëmmi yàlla ji fu ko waaye mën a lambijee boo demoon ba Tiwaawoon yàllaa la tax a jug waaye alaaji Malick taxu laa jug ki jugee fii dem miir na bàyyi ñës taxu kaa jug yàllaa ko tax a jug ku dem ba Touba Serigne Touba taxu laa jug waaye yàllaa la tax a jug ndax Serigne Touba bi mu woo jaam ñi waxul ay na Mbàkke waxul ay na ñeseen ay na muridullaahi la wax ku bëgg a dem ci yàlla kon ñi mu doon woo ci yàlla leen jëme woon kon fu ko waaye mën a wuy ji te duwul ci yàlla yaa jàpp ne wuy ji nga Serigne Touba waaye wuyoo goo ko demal ba Ndar demal Poroxaan demal Touba mbooleem sëriñ bi wootee dem fa boo àggul ci yàlla yaa yaakaar ne wuy ji nga sëriñ Touba waaye sëriñ Touba wooteegul foofu ndax mbooleem yooyu noonu laa la wax yoonu murid sosu na góor yàlla yi doon ay góor yàlla kamal sëriñ Touba seexal leen ñu doon ay lamp di wër di leeral jamono te boobu xàkkasa lu woote yooyu amagul ndax amagul benn tool boo xamante ni ñu ngi gis ci yoonu murid bu yoonu murid jug di ko bay ñu naan tool bii sëriñ Touba ko fàkkoon ne nañ ko bay si amuloon kon bi mu wootee ci lan la woon jaam ñi yamoo anil xalbi rey nan xat yi doni sowu mahwal mu xaasili an soo bi na jaasaat la waxoon sëriñ bu mat sëriñ sëñ tubaa nee na mooy kii téye xolu taalibeem di ko fóot ba mu set ni jonga ma di téye malaan bu tilim fóot ko bépp gàkk gàkk bu ci nekkoon dëñ ne sëriñ bu mat sëriñ noonu lay def xolu taalibeem sama yére bu tilim bii su ma ko joxee sama soxna na ko fóotal ma suba ginnaaw suba ma ñëw ne ko yére bi laa soxla mu génnee ko jox ma su ko ma xam ne fóot na ko su ko fóotul ma xam ne fóot na ko su ko fóotee te setul sax danaa xam ne fóot na ko waaye setul sama yére bii sama xol bee moo ko gën a jege foofu su ma ko joxee sëriñ su ko fóotee xam naa su ko fóotul xam naa te sëriñ bu mat sëriñ sëñ Tuubaa dana mooy kii téye xolu taalibe di ko fóot ne jonga ma di téye malaan bu tilim fóot ko bépp gàgg-gàgg bu ci nekkoon dëñ ginnaaw bi loolu amee ba noppi nag sëriñ Tuubaa dajee teg ne wulaayka xawmun laa yasqaa jaalisuhum ijek si boona murdina saadaati sëriñ boobu dana lay yéegee ba nga dëkkaalee gaay yàlla yi yan gaay yàlla ngay dëkkaaleel mu ne gaay yàlla yi nga xamante ni kuy jotaay ak ñoom doo texaadi góor yàlla yooyu fa lañ nekk mu ne Touba ña ngi ca texe ga li xam din nag foofu woo daa ba ñëpp ku yàlla bind woo naa la ci texe googu waaye balaa ngay yéen ñu ma woo noonu foofu nit ki wante dafa bëgg de muridun te bëgg saadixun te dëggu bi xidmatin tey tey tamit te du ma liggéeyal aw xubbin te bëgg ma aw hadiyaate wala ngay joxe addiya li ñuy xamal ne gis nga texe googu tey jii nii ñëpp ñu ngi ci maasee ñëpp ñu ngi maasee jàpp ne ñu ngi dem tubaa ka ñëw jàpp ne dem nañ ci texe gi suñ Touba woote waaye dama texe goo xamante ni dañ lay woo nga ne ala waaw maa ngi dugg ci texe gi maa ngi dugg Touba toog tuuti ñu wàll la nga ne maa ngi soo génn Touba texe gi suñ Touba di woote duwul lu ñuy dugg ak génn dañ fay sax texe gi suñ Touba woote duwul texe gu ñu dugg de waaye texe gi dugg ci yow la. foo nekk nekk faak moom juróom-ñaari at juróom-ñaari weer ak fan képp ku ko ànd ak ay noon yëg ne nga jóge fa ne yow jaamu yàlla gi nga déparé senegal ba nga duggee ci géej ga ba ngay ñibbisi amul wute kooku texee ne woon ci moom dëgg dëgg dëgg nag kooku texee ne ci moom moo tax fi ñu suñ tubaab wat nañ ko woo góor yàlla yi ñu ngi koy misaal ñu ngi koy sikar léegi géej la xaw ma nu ñu ko waxee ba ne njambe géej la sikar nañ ko léegi waaw di géej daal moo di géej ku ci naan mandileer sëñ Moussa Ka lan la wax sëñ Tuubaa di maanaam la sëñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy bu soobu ne mes boo génnee xam lan la wax ku génn loo war a xam sa borom ku soobu te wéy taaw ci ay yoonam feesal ci ay lan leer la wax leer ku soobu te wéy taaw ci ay yoonam feesal ci ay leer ba fàttali duyal moromam la wax kon léegi lan moo tax ñuy toppee mënatuñaa fees ci leer bay duyale ku yàlla dumbale ba nga am leer di ko war sax ñu ne mënta ne ndax lan bu dee sëñ Tuubaa la mu doon joxe jeex na jartul jébbalu bu dee sëñ Tuubaa lu doon joxe jeex na jotul jébbalu sëñ Tuubaa moo ne ñëw leen doon samay taalibe gaa yi ñëw doon talabu talabu mooy kii sàkku lan la ñu sàkku ba xam dañaa sàkkoo sant Mbàkke dañaa sàkku soxna oto la ñuy wut Tuubaa wala ay kër wala lu ñu fay wut du jeesneer du jabar ñu bëgg ñooy dem suñu mbokk yi uti ko damay faral di wax wax naa ko barki demoo Njaay ma ne nga bëgg jabar dem sa nijaay mu may la ngay xew dem say xarit ànd ak yow uti mat dajale lañu am ñi dem sa bàjjen dem wuti tisi sa yaay dem wuti feñ nak ku nekk dem wuti ñu dajale nekk fi sa xarti yi ak yow ci baas yi ak yow ci matta mi ak yow ci xari yi ak yow ci daral yi nga dem ba ci bis ba 11h jot ab serigne sa serigne ñew fa dem nga ne ah, a gis na serigne bi li rek tax ñu war ga top ndax serigne bi da am yitte bu doon yitte rek tax ñi jébbalu ñi andon ak yow taxani and ak yow uti nak andon ak yow uti tisi dama jébbalu ci ñom ñoo ñoo gën a ëpp yitte sëñ bi sëriñ duñ ci jébbalu ndax yitte yow yaa war a am yitte ban yitte nga war a am mooy yitte sa borom loolu la sëñ Tuubaa waxoon kat sëñ Tuubaa dane yonent bi salaa salaam moo ma feeñu fii ne ma nu mu ko waxee sax rabbi ashaabaka bil himma wala turabbi bi darti faqat bul yarati say taalibe ci jàng ak jàngale waaye yar leen ci yitte ban yitte yittey dem ci yàlla la woon duwul yittey takk jabar duwul yittey uti yére duwul tey tabax kër du tey dara waaye yittey dem ci yàlla la yitte jëlee ci baax doon moo tax bi sëñ Moussa Ka waxee ne ku soobu taway taw ci ay yoonam feesal ci ay leer ba fati du yol moromam mu ne kuy soobu deex na xam ndox dox bi yeewul lewet na te wexti biiram waaye eh, sëñ Fall waxul woon bu leen xelu xelu leen bu leen xelu xelu leen sëñ tu sëñ sëñ Touba Sëriñ Saaliw fàkk àll bi toll ni xel koom àll bu doy nii tuddee ko xel xel xel koom la kon nañ liggéeye xel yi li mën a am am lu mënta am ñu xam ne li mënta am mu ne ku soobu te way taw ci ay yoon feesal ci ay leer wa fa diyoon ma doom kuy soobu dex na xam ndox dof bi yeewul lewet na te weex ci biiram Moussa Ndiaye mii ak man mii ak keneen ba mu weexee bu ñu ragaloon dañuy daw ndax dégg nañ lu ne gis nañ lu ne waaye xam ne nit ñi la woon démb moo di tey rek balaa ñuy xam dañu yaakaar ne dangaa ngaa jaar ci yoonu alok damay faral di wax ne gis nga sëriñ bi gënu laa bëgg sa ndey Moussa mii sëñ alaaji lu mu ko bëgg bëgg bëgg yaay ma gën a bëgg lu ko sëñ alaaji bëgg-bëgg maasi rek gën a bëgg kon dafa bu sooboo ci mbir ñàkk a xam wala ñàkk am leen leer moo tax ñi kay lii mais duwul bañ sax la xam lu tax duwul bañ maam Seeram Fall koro bi mu dem di jaante Serigne Touba lu ko maam Seydou bu Njaay wax fi nga jëm yàlla na fa musiba bi yàlla yàlla na fa musiba bi yàlla jiitu yàlla na musiba bi yàlla këpp sa kaw koro bi liggéey bi matee bàyyi faal yi luñ sikar jaaraama ndey Seynabou Njaay li sëñ Bamba yoroon di ko jaay yaa ko jëndal waa ana njëgga kañ la joxe njëg loolu lañ xëy waxaat te yaay ma ko waxoon le fi nga jëm yàlla bu soob yàlla këpp ñi xëy toogaat ne jaaraama ndey seen bu njaay li sëñ bàmba yoroon di ko jaay yaa ko jënd waa njëriñ njaay waaw loolu nan la demee loolu nu demee kon bu ñu la waxee ku sàggan sànku foofu lab doo duy doo setal te doo xam do xam boromam ñe la meloy bamba ngi waju xamul na deglu te roy roy lu ay jikko mo xam boromam ñe la may morom meloy bamba ñi ne di faji aajo di xam lay mbot la wax mbot di seexal di genné ru ru ci toskare di jox boromam xam nga bu nekkone dafa yam ci bamba loolu dafa doon lu yam ci seigne touba kon seigne touba du seexal te seigne touba dafa tomb juromi tomb ne bett len ngeen bett ma ma len ngeen bett dana len bett ne bett bu njëkk bi mooy may jóg fii di ànd ak tubaab bi di génn fii di liggéey li yàlla mboolem ko yàlla bind yaakaaroon nga ne balaa may àgg ndar gii weddi li may wax wala tubaab bi dana ma sànq suñ tubaab ànd ak tubaab bi juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak lu teg ñibbi si la mu doon wax ba muy dem fii ba muy ñibbisi loolu lay wax tubaab bi seedo bi mu ñëwee sëñ alaaji bi mu tàmbalee wootee léegi dégg nga sëñ daara bu ñëw jébbal te sëñ daara yu yàlla war a xam yàllaa fi ne imaam yu xamul yàlla war a xam yàllaa fi ne ba xam yàlla dafa wax ne ab ko sóora war a jébbalu képp ku xamul yàlla da ngaa war a dem uti sëriñ bu la xamal yàlla kon imaam bu xamul yàlla na uti koo xamal yàlla yonent yàlla Moussa sax bi mu réeree maarifa yàlla dana ma seeti xudar te yonent la woon yonent la woon bi yàlla yàlla dana ko li nga yaakaar ne man nga matagoo de am na benn waa ju nekk bërëb sàngam dama fekk ko fa da nga moom te xam ne lii tax si yonent bi mat kookoo la koy jox te xudar nekkul woon yonent sëñ daara Asan Njaay bi mu wujji sëñ Tuubaa daara am na tas wuy ji sëñ daa Abdourahmane Lo bi mu wuj seigne Touba dafa mokal alcorane xam li ñu ci kay dem wuti seigne Mbàkke Buso alaayu Malik dane bu xamul won dara ci seigne Touba la wax bu xamul won dara dara dara dara nee Buso mi jël boppam jox seigne Touba doyna ma jëb ma nangu ne seigne Touba nitu yalla ndax xam-xamam bu wër ak xam-xamam bu leer kon kilifa yoy yëpp ak ñu ci mënta tuddu xey tëj seen daara yu wuji seigne Touba seigne Touba ne leen bett na leen de waye ñu tamit ngeen ma de lan motax lan motax ngeen bett ma mu ne doomu soxna bëggul ku ko gën soo leen ñëwee yéen ñi ñëpp nangoo doon samay taalibe bett ngeen ma de mu ne waaye nag danaa leen bettaat nan la leen bettee sëriñ bu sant Faal fan la tàmbalee ci maam Cheikh wax leen dëgg sant bu sa sëriñ bu sant Bousso yow loo doon murit ku sa sëriñ nga ne sëñ nangam Bousso kenn la tàmbali bi suñ tubaa seexalee sëñ bàkk Bousso yow loo doon murit ku sa sëriñ nga ne sëñ nangam Cissé kañ la tàmbali bi suñ tubaa seexalee sëñ a Xoroja Cissé yow loo doon nga ne murit ku sa kuy sa sëriñ nga ne sëñ nangam Njaay kenn la tàmbali bu sëñ Tuubaa seexalee sëñ Daara Asan Njaay kon ñooñu ñëpp bi ñu ñëwee sëñ Tuubaa ay taalibe lañ nangoo doon kenn xalaatul woon cee doon sëriñ sëñ Tuubaa bi mu jógee fii gànnaar avant mi jógee gànnaar dajale na ay mag ne leen dama leen bëgg a wax noo leen yoree mbooloo balaa ngeen am mbooloo kenn ki nag ah kon de sëñ bi ñu sant yàlla ndax kon nekk ñun bis jot kenn topp ñu kon ñooñu xalaatuñu woon ku leen topp tabaski moom kuy julli sa daal yi ran nga lay teg ndax du nekkul ci biir waaye bu ñu dem jumaa ji wala jàkk ji daanaka li ñuy yóbbu mooy daal di jarax yéen jàpp yow <coughs> te comme ci maa toll booy génn sa coro soo ko rafet soo laay daal ndax xam nga ne foofu yaakaaroo ñu sàcc ko te foofu ay doxaankat dafa ne comme doxaankat yi lañ gën a wóolu nag ngay dem sa jàkk ja kon war naa xamaraat diine ji ndax yéen bi saa salaam alxuraan mi digal diine dana inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar ñu ne dindi ñaaw teef ak ñun si sàcc ñaaw teef la fen ñaaw teef la wurit ñaaw teef la jëw ñaaw teef la doxaan yi ñaaw jëm fa léegi nag bu ñuy doxaan ñun doxaan kat yëpp mën nañaa dajee ca soirée ba ku nekk soldat bu rafet yor suñu iPhone ba ñibbi benn manque kon feebar bi fan la moo tax li jiitu aaya boobu lañu waroon di dellu yàlla bu ne aqiimu salaata li zikri yàlla julli leen ndax ngeen may tudd wala julli leen ndax ngeen fàttali a doon kon dafa mel ni buñ mënoon di sax ci tudd yàlla yàlla bu àgg ak ñun si inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar waaye bu jéemoon sax mu wér waaw ba ni si kuréel ak bar tudd yàlla sax gërëm naa ko ñun. moo tax Serigne lu mu woote rek mooy li ñu alxuraan jàngal comme naan xam naa dawaamul zikri foofu ak min kulli maa kaana mu dégg si lu gën ci li mu di def mooy laa ilaha illallah xal qultu saalika bila israari wala ibalim sal inkaari maa ko wax yellawuma وكل من سألني فليجواب قبل ولا تجار ولا كتاب وكنت من ترك بذكر الله بذكر خيره فقل الله Sëñ Tuubaa deme képp ku mën a tudd laa ilaaha illallaah la suñu baax mu ne dox buy caaxaan la dox buy caaxaan dama ne dox bu caaxaanul boo xam ne caaxaanul sax kenn du ko dégg dépasse dégg lañ demee xam nga dox bu caaxaan bu caaxaan ko dégg dépasse laa boo mën naa la nga dem fépp dox buy caaxaan nga jël sa ruu gi jox ko xam nga mu ñëwee ba yoonu murit ñi bëgg a toog naa ay sëñ bi nii na boole nooyal na lale lu la lañ wax waaw sëñ Tuubaa ni bawul fu doon zikir laay xaaral yi kon noonu fi leen di baal ñu bil mun a jaar takkul ma daa jaar fi leen di junooy moom naa si na sam maa wala a bu saraat waaw lale bu nooyee nu ñu def ah kon la bu borom bu fees dell lan bi nooy borom mën naa fexe fexe ba def du tëdd na la nañu waxante dëgg parce que cant yi bu jotee ñun ñii ñëpp suñu programme bu jotee lu mat téeméeri neen bokk daara bi te benn xar lañ koy soxlaa benn nag te day cete cete ba ci bis bi am na ñu bokk ci daara bi lu mat ñetti nit da leen ci tiitoon te yow kese koy def dañ del wax suñu bopp sëriñ bi fawul fawul am toog koy def li ñu war a def mooy fas dëgg ci xol di nga wax ci làmb te di ko jëf ci cër yoonu murit gi foog ak yoon yëpp foog yi bari te suñ sëriñ bu mu mën a doon war nga loolu barke Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa watuwul caaxaan Alaaji Maalik watu ko yonent bi watu ko Baye Niass watu ko ku mu mën a doon watuwul caaxaan kon nañ delluwaat suñu bopp fas yéenee dund dëgg gi ñu Sëriñ Tuubaa wooyoo Sëriñ ko jógee fi amul fenn ku ñaan fi mooy kër fi mooy kër Sëriñ a samp tuddee ko baay wala tuddee ko boppam wala yàlla la ko tuddee suñuy jaar dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. daanaka ne ko xaaritoon jar du naa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.